victoire Linguère. waaw dama Linguère compromettre non loolu la ko yow Linguère yow déjà gis nga yow ñaata maire fa nekk ñaata maire fa nekk ak ay conseil ñoo dajaloo ñoom ñëpp excepté nenu Aliou Ngouille ne ñu ànd ak Amadou Ba war dégg loolu sàmm ka àndal derrière Amadou Ba tu l'as vu non ay responsable que xam nga wax ma ak électorat bi dafa wute. waaw mais attends mais ñooy représentant nag peuple bi foofu a gis ba keroog élection élection ñëwagul ñu représenté peuple bi. amul kenn ko ànd ak Aly Ngouille Ndiaye. local yi ba ngeen euh, législative yi. ba ngeen ba jëlee. ñu gagné ay local nekkoon ci opposition bi ngeen indi leen ci nguur gi. ba seen ba seen askan ba di voté ci législative yi dañoo dóor benn. parce que ni ñu ko defee moo baaxul loolu laa demal. les les les vingt deux maires xaw ma dix sept maires. la xaw ma de Linguère. mën nañu démarqué wu mais est ce bi dina démarqué wu. waaw nañ alors élection koy pour prouver on nan dem man dama jàpp ne Aliou Ngouye dafa juum. loolu laa gëm dafa juum dafa juum Aliou Ngouye du woon taxaw doon taxaw di défi nekk candidat. nu mu juum non dafa juum li wala xam naa ko dafa juum. lu tax ngeen dafa juum dafa juum te ba maa ngi koy ñaan mu rectifié wu bu nee ba amul parrainage na ñëwaat kër kër këram la. parce que nan a taxee tout de go nga ne du am parrainage. góob ma ko amul daal ni góob ma nangam góob ma ni mën naa matal ay parrainage góob ma ko ça man la engagé góob ma ni Aliou Ngouye dina am parrainage. le maire de